tijani sama waay la jamiñal jaara busu wala ma sebi jaara jurujub bu waxee tontu noonu mm-hmm. wax nag bala muy leer te bu dee dëgg rek la ñor da ngay indee audio yëpp audio yëpp a ngi fi lëf laa fi tamit lëf laa fi juutu yi mu doon bu fekkee ne nag da ngay bu fekkee ne da ngay génne bu fekk voilà bu fekkee ne yow nag da ngay kenn rek bàyyi keneen. waaw jàppal ne dëgg yàq kenn la ñor defar kenn. dëgg la. te ñoom ñaar na comme yàlla dogal na ñoo ko seqoon doon ko wax te ñoom ñaar. sëñ bi moom ala kulli aalen du génne di ko wax. Mm-hmm. ndaw si comme moo bëgg maam taxaw di xaawi suturaam. Mm-hmm. léegi ñoom buñ ko suturaal nañ génne audio audio ndaw si. kenn du ko suturaal kii kenn du ko suturaal. li ndaw si doon wax ko ku ci a jot ku bëgg a gis lëf li. ak fi ñu koy kat fi ko fi ñu koy kate dem leen sama telegram sama telegram sama lien moo nekk sama tiktok bës leen sama lien boobu ngeen dugg directement sama telegram lépp fa lay xajee parce que fii maanaam tiktok mënoo fee dugal yenn yi fi mu toll nii même bu ma ko flashé wan leen ko nii sax tiktok daf may daf may jox ay ay punition mais mi ngi nii sama téléphone man lu ma man ci preuve laay dox comprendre man ci preuve laay dox waaw. kon audio yooyu daa war a génn. Mm-hmm. bu dee cadrement sëñ bi. nit ku dul dëgg la. wax dëgg yàlla bu dee dëgg rek góor la nag. dëgg la. dëgg rek góor la wax dëgg yàlla. te fekkiwul kenn ji sama téléphone buñ ko jëloon suñ bada dina fi gis audio yi may waxee jigéen naan ko kaay ma def la nangam hmm. man samay audio bu génnoon du garaaw. yaa ngi dégg. kattan kattante baa ngi nii kay. ñu koy ñu koy fan koy kattee. waroon tëdd ndaw si du ma ko mën a wane du ma ko mën wane parce que TikTok daf may interdit mais dama koy balancer ndey sama telegram ku ko bëgg a copier wala nga estati ko demal sama telegram sama telegram sama lien TikTok la nekk du koy gis waaw yónnee ma ko sama whatsapp waaw baax na maa ngi la ko yónnee léegi waaw yónnee ma ko sama whatsapp léegi waaw ci carrément sëriñ bi vidéo audio yi audio yi yàgg léegi ne damaa dégg sa benn baat nga wax ne bu dee kaa amee xam nga ka day am bu demee ba dee kaa am nga xam ne kaa amul nga bëgg retourné waat indiwaat kaa te amoo ka nga indi lu yàgg ya dama jàpp ne moo dal téléphone. ñaare ba démb damaa gis benn waaye bu tudd seex Dieng. dugg ci live bu Adamo bi mu duggee xam nga lu wax ndaw si jëmmam daal laaj sëñ bi 9 sëñ bi bañ Kalifon Sall laaj sëñ bi 6 millions pour sëñ bi jox ko. waaw da ko doon chantage pour bañ pour bañ. parce que maanaam gel bi. gel bi mare mare mii ngeen di gis nii. dafa amoon mm. confiance ci Kalifon jàpp ne comme chantage bu sëñ bi sëñ bi bañ. bu ko waxee Kalifon Kalifon bu wooyee sëñ bi ñu chantage ko dina ko jox mais Kalifon dafa laaj la ali maanaam parti ndaw si ba pare doon laajaaleel mm. boppam. mais dama jàpp ne bu bon di am ndaw see bon. mais lëf sax kaa ma la sax maanaam deux mille vingt deux amoon na ay audio mais ndaw si deux mille vingt deux xamutoon sëñ bi ñëwutoon si sëñ xam naa après la dégg histoire bi xam ne sëñ bi dafa am faible su xëy na jigéen bu fa jaaree dana am li bëgg mu ñëw jugee jugee ba dëkkam ñëw fekk ci sëñ bi kii deux mille vingt trois la commencé fréquenter sëñ bi 2023. Mhm. moo tax ñu nekk ci biir gër gi xamuñu ko xam nga tamit sa nit boo ko dee défendre. waaye kon yow kon yow d' accord nga ne audio yi kon audio yi bees ma ñëw rek parce que ah. sa nit. boo ko dee défendre. da nga koy défendre ci dëgg. mooy tax sénégalais yi laa naw mën laa jàpp. parce que sénégalais yi aussi dañu am xel di xalaat. comprendre mhm. moo tax man su ma ko dee défendre tamit wax dëgg yàlla dama koy défendre ci dëgg audio yi audio yu bees la effectivement parce que xale bu jigéen bi. ah 2023 waaw la commencé ñëw kër sëñ ba. deux mille vingt trois la ah. fi ñëw waaw léegi audio yi deux mille vingt quatre la moom moo defaat ndefu monté mais lépp nag ñoom ñoo fekk sëñ bi sëñ bi moom fekk jowu leen waaw léegi nga bu ko man damaa jàpp ne man sama jëmm audio yu audio yu bees la du du yu bees man damaa jàpp audio audio yu yàgg la non yu la moom man damay wax sama dëgg rek sëñ bi bu ma jàkkaaroo ah. waaw man sama dëgg moom dama koy wax parce que loolu loolu ci noonu man laay sentiré ci laay mën a défendre samay nit parce que sëñ bi lenn nga lenn nañ ko mën a défendre ci sénégalais yi mooy sénégalais yi comprendre xam ne li mu def moom la moom moo ko def effectivement parce que 2022 avoué na ko ne moom moo ko def 2024 moom tamit moo ko def léegi nag bu dee feebar la ñu xam ne feebar la bu dee maa la ñu xam ne maa tay la ñu jàppale ko ba loolu deñ bu fekkee ne dañ koo liggéey ñu xam ne dañ koo liggéey fekkee ne coobare suñu borom la mbirum yàlla la ñu xam ne tamit yàlla mais jàpp naa ne moom lii buñ ci jugee lii moom audio audio sëñ bi wala vidéo sëñ bi moom waxuma la ki gën a caga bi gën a bon ci Sénégal bu romboon sëñ Modou Lo Ngabou simmeeku ba set toog ci kaw tëli bi barka arxuraanu karim du ko parce que xam na ne bu ko vidéo xam na li ndax 2022 ka ka defoon muy Aïda Dieng kenn nga am naa fotom mais du ma ko wane parce que histoire bi jàll na jeex na te comprendre loolu amul benn problème am naa fotom xam na ma xam na ma léegi comme wanewuñ fotom moo tax ñu ne xaaru ñu ñëwaat def ko mais boo defee nii ah di leen noppal sëriñ si waxuma la sëñ sax mais beneen sëriñ bu ñu koy waaj a def di leen sóoraale na ñoom seen vidéo ñoom ak seen i mën naa génn. mais mën naa laa laaj leen ba de. sëriñ bi am am am am na soxna. sëñ bi am amoon na ñeenti soxla man ba may nekk ci daara yi quatre femmes la amoon. Hmm. ay xale yu ndaw nag. Ah. macha allah waaw ay xale yu ndaw ki mujjee takk naar la Dakar bii la nekkoon université la doon jàngee. waaw jotoon naa sax ëmb naa sax ëmb yaakaar naa ne quatre femmes léegi quatrième femme bi dafa amoon suñu benn mbokku taalibe bu gaañu woon. bu faatu woon. Hmm. waaw ku ne ku bu faatu woon léegi bi mu faatoo. soxnaam. Mhm. xam nga man maa nekk nii ci photo bi lëx la yaa may gis. waaw waaw waaw. bi mu faatoo léegi soxnaam au lieu ñu jël ko maye ko xam nga mbirum ji mbirum jigéen rek sëñ bi moo waroon a sax dugg ci yooyu wax dëgg yàlla dafa waroon a bàyyi soxna si rek xëy na taalibe yi buñ ko bëggee takk ko wala ñeneen bu ko bëggee takk ko wala bu ko doon maye tamit bu doon maye bi egg na ci xolam da koy maye ci saase mais boobu dana woon da koy maye mhm. mais xam naa ne maye bi tamit eggul ci xolom léegi mu dem di labat soxna si daan ne ko soxna si ne ko yow ñeenti soxna nga mu ne ko damay fase benn dugal la foofu la problème bi démarré léegi soxna si bu mu génnee ci biti keesu sëñ bi dem toog ci ñeneen femmes yi mooy mooy suñu suñu soxna yi suñu ñun taalibe yi suñu soxna yi nekk foofu rek muy waxtaan ak ñoom ah. naan leen sëñ bi de daf ma bëgg a takk kontaan ci moom bi mu koy wax jubluwu ca weer mais na ci kontaan wax ci loolu lu ne sëñ ah ok daan na waaw sëñ bi nan lay takkee sëñ bi am ñeenti xale yu ji léegi nga xale yu ji euh, xale bu jigéen bi daan sëñ bi nee na day fase kenn dugal ma léegi nga kenn ci xa kenn ci xale yu jigéen bi ñaam bi ñu toogee ñu ne ah sëñ bi kon ndeke dafa soxla ñu ko bëggee kon ndeke mën na yooyu. léegi nga ci la soxna Ayda. Ah. ci la soxna Ayda ne kon xaaral ma piéger ko xool. Mm-hmm. léegi bàyyi ba sëñ bi benn jour fekk boobu soxna Ayda mi ngi Dakar ñibbisi na nekkul Touba de boobu jël na ay bagages am ba ñibbisi sëñ bi mosul séq ak moom def na def naa ak sëñ bi ay at xaw ma juróomi at xaw ma juróom-benn at sëñ bi mosul. sëñ bi ayda soxna sëñ bi la woon soxna sëñ bi jeng benn moodu moodu moo ko mooy borom këram. ah ok mooy audio yi. taalibe sëñ bi la woon mais da ci kër gi mu nekk fa parce que mu nekkul nekkul Sénégal. mais lam fa nekk ah. fa nekk yëpp sëñ mosul séq ak moom mbiru ñàkk fayda moom maanaam mosu koo laal. Uh-huh. mais bi mu ñibbisee Dakar bi mu ñibbisee Dakar dégg dégg loolu xale yi jigéen di ko waxtaanee ci mbirum ci mbirum sëñ bi la ne moom xaar mu piégé sëñ bi léegi daal di woo téléphone sëñ bi ne ko man sëñ bi mu ne waaw mu ne ko man damaa nangu sama jëkkër xam nga jigéen rek ah am na fu muy waxee yow nel damaa nangu sama jëkkër nangam ak nangam kërëb kërëb man sama jëkkër bi duggee ci débat ne ko comme da nga nam nangam man maa ngi fi cas bi foofu la démarré léegi ñoom ñaar ñuy waxtaan ci yooyu muy envoyé vidéo lëf li sëñ bi mi di ko envoyé comprendre nga léegi ba affaire bi kalaatewul bi affaire bi kalaatewul ñu jàpp ñu jàppalee ñoom bi leen jàppee ñoom ndeke xale bu jigéen bi kooku Aïda moomu benn xale bu jigéen rek la jot a envoyé moom moom ak vidéo yi benn xale bu jigéen léegi xale bu jigéen ba mu ko envoyé tamit dañ ko jàppale mais kooku heureusement jotul envoyé keneen mhm. naa doon leen seeti parce que ñun ñëpp mhm. bokkoon kër comprendre nga parce que li tax mu mhm. metti woon mooy sëñ dama jàppoon ne sëñ bi a tëj parce que ay taalibeem lan comprendre nga moo tax ah. may dem di leen seeti léegi boobu problème boobu jaaxoon na dama xamul nag ndax sëñ bi di sama waay la Sambi ñël jaara busuk bala mañ se bi jaara